salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Khalifa mi ku ñàkk jom la pourtant kuule woon naa fi lëfal ndeyam ci Wally de moom Wally Seck guddi Wally Seck ngoon ki ngay waxal yaayam dafa liggéey Wally raw na la raw ku bokk ci yow ak ko yaakaar moo ngi këram ku rafet otom bu rafet ñi bëgg nañ ko muy way lu neex yaayam gërëm ko papaam gërëm ko yow sa yaay gërëmu sa baay gërëmu sa famille gërëmu amoo oto amoo kër moto nga yor mel ni ab topp nday di saaga nday rek ki ngay saaga mu yow munoo kat sa tuuru nday nga bàyyi Wally Seck man damaa xamul rappeur loolu nga rappeur boo xam ne mosoo génnee cassette mosoo génnee vidéo mosoo génnee son rappeur bu xamul te jaw ndaye munoo dugg sa biir lëfal nday nga sa nday am Wally Seck moom ci laay plafonné sa lëfal nday yow da nga dox xaw ma wéroo munoo bàyyi Wally Seck dinaa fàtt sa tuuru nday de doomu ñëpp ndayam ji doomu xaj. salaamaaleykum gars yi Khalifa rappeur mi ku ñàkk jom la pourtant kuule woon naa fi lëfal ndeyam ci Wally de moom Wally Seck guddi Wally Seck ngoon ki ngay waxal yaayam dafa liggéey Wally raw na la raw ku bokk ci ak koo yaakaar moo ngi këram ku rafet otoom bu rafet nit ñi bëgg nañ ko muy way lu neex yaayam gërëm ko papaam gërëm ko yow sa yaay gërëmu sa baay gërëmu sa famille gërëmu amoo oto amoo kër moto nga yor mel ni ab njulli topp nday di saaga nday rek ki ngay saaga mut yow munoo kat sa tuuru nday nga bàyyi Wally Seck man damaa xamul rappeur loolu nga rappeur boo xam ne mosoo génnee cassette mosoo génnee vidéo mosoo génnee son rappeur bu xamul dajaw ndaye munoo dugg sa biir lëfal nday nga installé la fa ab studio di fa tourner ay clip wala nga fay produire ay son looloo gën wax ji kattal sa nday yooyu xam naa am Wally Seck moom ci laay plafonné sa lëfal nday yow da nga dox xaw a wéroo munoo bàyyi Wally Seck dinaa fàtt sa tuuru nday de doomu ñëpp ndayam ji doomu xaj salaama